ñëw nañ ci turu suñu xarit suñu soppee sunu doomu ndey waaye tamit suñu sang mooy suma sang man ci ni ma koy waxee suma doomu nijaay la euh, indi lii nga xam ne nii bu teraanga la boo xam ne nii xëy na xeeb nañ ko lool euh, mu nekk nekk loo xam ne nii wax euh, maanaam damay wax ne teraanga la boo xam ni mënuñoo fay ki nga xam ni moom lañ ko jëfal ndax kiñ ko jëfal muy Baye Ciss man damay wax wax joo xam ne ne dama ne iteem ak bëgg-bëggam ci senegal rawatina Kaolack waaye rawatina Medina Baye euh, ku ko defal rek da nga jéem pour fay ko ci lim la defal ndax euh, daay man buñ génnee ci gàmmu gi weesu rek nga xam ne moom la koy def ci xew-xew bu nekk ci Medina bay wala ci Kaolack euh, loxoom dooleem. xelam xalaatam dana dugg ci euh, ci xadara bu nekk ci senegal waaye rawatina Kaolack ki mu dëkk mais aussi rawatina Medina Baye. Seydou Ibrahima baay Ciss mii lépp lu ñu mës a yëngatu ci dëkk bi rek loxoom dugg na si xalaatam dugg na si mu nekk loo xam ne tamit wax dëgg yàlla lu ñu naw la mu nekk tamit loo xam ne lu ñu tiitaroo la lu ñu feeñal la fu ñu mënta nekk dañ koy feeñal ndax wax dëgg yàlla di yëngatu. si mbiram bay mi kep ku si japp dimbali la si rek su boba dafa na la lo xamne dafa yomba sa liggey te dafa am wax ju mag dimni wax ren fi bay fi ñewé sesiko ko mu ne man de si yeen la far kon nak far go nga far si ñun ñun tamit si yow leen far ndax nit ki so bëggee da nga wara fay yow tamit sa mbugel ñun gis ne da ñoo bëgg ñun tamit wanneel na la Cheikh Ibrahima ñun tamit bëgg neen la wax deug yalla euh lepp lo xamne indi nañ ko rek xeeb nañ ko waaye xamal ne suñu xool ak suñu xalaat ak suñuy man-man ak suñu ñaan dinañ ko def mu jëm si yow. ñu sawar ci lool ci barab buñ koy indi ñu sawar ci lool ci kiñ koy indil ñu sawar ci lool ku am bët mën a xool di gis li nga xam ne mu ngi koy taxawal non seulement ci ki mu oote ne mooy sëriñam ndax euh, ku. am parcelle lum ndaw ndaw su fekkee euh, vingt mètres la rek vingt mètres carré rek ba àpp bu xoolee bâtiment bii ñi liggéey fii te bëgg mbëggeel rek moo ko indi ci mu liggéey ko nga xam ne kooku bëgg na ki muy wax ne moom la bëgg muy Cheikh Ibrahim euh, moo tax doy na nag ci loolu buñ ne bëgg nga Kaolack tamit gis euh, li nga tàmbalee réaliser man léegi léeg euh, li may génn bëriwut waaye bu ma njëkkee génn gis vert blanc bu nekk fële ci kaw ma laajte ñu ne yaa ko fa ubbi pour ay jaam yàlla yoo xam ne dinañ fa mën a daan seen doole amee seen bopp ngir gore loolu du yëfi caaxaan barki dem boo njaay gis naa la euh, Alfayda def ko direct ci gouvernance la woon xaw mairie la woon xaw ma CDEPS nga am problème mu ne ma waxal bàyyi ne ko ñun xam nañ ki ñu defal ak it li tax ñu defal ko ko du dara lu dul gis-gisam ak bëgg-bëggam ci Médina Baye mu ni ma wax ko ne ko ñun xam nañ ni pavage bi mu def ci jumaa ji xam nañ lan la fi jëriñ ndax lu jiitu mu def ko fi ndox yu bon yi dafa daan traversé fii kenn du mën a dem ci jumaa ji mu ne ma làmp yim leeral solaire yi gis nañ ko ba tax na ay nit moom gis ko di ko ci roy mu ne ma ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne duur lu ñuy tudd ci làmmeñ waaye waxal bàyyi na ko ñun duñu yem fii millions yi ñuy joxe ak ak i gëlëm li ci kanam raw li bët le huit gis mobilisation bi nga xamante ne moom lañ def moom la Cheikh bàyyi di def ak mboole mi mbokkam mu ne ma ak i am di jàmmam ak yi sympathisant am ñëpp danañ def mobilisation boo xam ne bàyyi dina ko gis buy génn fii ci Médina dina ko gis bu demee ba yegg ci stade ba loolu nag yaakaar naa ne nekk na lu rëy ci moom. lu ma bett la ndaxte kat man taalibe laa jël suma bopp taalibe laa jàpp suma bopp te diggante taalibe sëriñ ñun liñ ci xam rek mooy yóbbu joxe addiya donc su sëriñ ba delloo gannaaw ñëw indi euh, ay millions ak ay gileem jox la ko pour ne la sa bis bii maa la ko jàppale loolu mun naa gëm ne kooku sëriñ la ndaxte am na fu foo ko fu la teg ak yëg-yëg am ci yow ba tax mu yëkkati loolu teraanga yooyu yëpp di la ko jox donk loolu moo tax mu foor ci man ndaxte dañ naan suñ ne ndax diw baax na dañ naan ndax mbokk yaa ko wax waaye tamit soo demee ci xew lu toll nii te say mbokk jiitaluñ la donc amul benn njëriñ donc moo tax lii tey rëy ci man torop rëy torop torop ci man waaye wax leen Cheikh Baye Oumou ak yéen ñi ñëw yëpp ne yàlla na leen Baye Niass fay Baye Niass la am te yaakaar naa ne mën na leen fayal boppam yàlla na leen fay We'll be right back.